fas yéene ko defee ni mu ko bëggee euh, di ñaan suñu borom yàggal ko fi lool te may ko wér waaw ñun daal dañoo fas yéene ànd ak moom koor gi ba mu jeex tàkk rek saa yu xëyee rek ñëw di ko dundal ni mu ko bëggee waaw noonu daal lañ ko fas yéene defee rek waaw di ñaanal sëñ Muntaxa suñu borom yàggal ko fi lool te ko wér waaw loolu daal mooy moo ñu fi indi woon wax dëgg yàlla di rafetlu it taxawaay bi ndax gis nañ euh, mbokk taalibe yi ni ñu taxawoo bis bi ñu ñëw ànd kook ñoom leen ñaanal ñoom it suñu borom yokk leen te lépp lu ñu liggéeyal Serigne Touba rek ñu bokk ko taalibe yëpp rek ñi fi ñëw ñi fi ñëwul ñëpp rek ñu yéene leen ci suñu borom boole leen ci ci yoon bi waaw daal moo ñu fi donc ba tey barke Sëñ Tuubaa ñu ngi fi seen télévision Al Mouridiyyah ñu ngi fi ci baas bi nga xam ne fi lañ teewloo xasida yi ci biir kër Sëñ Tuubaa gi Baye Mourid ñu ngi ziar baax a baax ci jotaay bi nga xam ne ci ngeen toog di teewloo xasida yi di tàggatal Cheikh Mouhamadou Mountakha Mbacké ban jàngal nga ci am ak ban gis-gis asalaamaaleykum wa rahmatulahi taala wa barakatu man nag maa ngi tudd Ndiaga Gaye nekk ci daara ji depuis 1977 Ah, li ma ci jàggat bi ma ci amit mooy bala ma wax dara ñu ñaanal sëñ Muntaxa mu yàgg fi lool te wér ñaanal sëñ Aatu fa mu nekk itam suñu borom di yokk ay leeram te taas ci barkeem ndax moo ñu won yoon wi gunge ci dem bàyyi ñu fi kon nun li ci des nun la wa di ñaanal seen Yuusu mi ko fi wuutoo tam suñu borom may ko kartan ba fi mu bëgg a àggale lépp ñu ànd kook moom te mu àggale ko ci jàmm lii nag dafa jafe ndax ku mel ni sëriñ Touba daan def li mel nii njaareem sëñ Mountakha jël ko indil ñu ko fii daaw amuñu ko nu namoon ko lool kon ñu ngi koy ñaanal mu yàgg fi lool te ba ñu mën ko mën def beneen yoon jërëjëf. salaamaaleykum. kon ba tey niñ ko waxoon rek ñu ngi fii ci baas ba léegi ànd suñu baay ñu ngi ko fekk ci baas bi mu ngi duru xasida di xaar Cheikh Mouhamadou Mountakha di teewlu xasida yi ban jàngat nga am ci woote bi Cheikh Mouhamadou Mountakha woote ni nga ko sëñ wala woote njaarim asalaamaaleykum wa rahmatulahi taala wa eh, ñoo ngi leen di siyaar bu baax di ñaanal sëñ sëñ Atou Diagne yàlla saa borom dool saa borom doole ay xéebalam ci barsàq barke borom Touba njàngat mu rëy rëy rëy moo xam ne jàpp naa ne gisuma ku ko gën a euh, taxawu xasida yi ci mboolem ko fi mas a jaar lu ci waaye masa def rek doole na ko man ci sama gis-gis ni mu koy taxawoo fi mu ne ni ci njaare mu taxawoo ko fii jumaa ji noonu lañuy def fajar gi maanaam wax dëgg yàlla maanaam mbégte mi ma ci àndal man man moom ma fu mënu ma xam fu app bi yam noo koy sant bu gërëm baax a baax tey yalwaan sunu boroom mu dimbali ci rek saxalal nu ko fi lool. waaw waaw ah, salaamaaleykum wa rahmatulah kon mbokk yi ñu ngi fi seen télévision Al Mouridiyyah fii ci kër Tuubaa gi ah, bi fekk leen nga toog di eh, dund xasida wala nga suñ kuréel si jaamu yàlla sëñ Mouhamadou Mountakha bi mu woote fii dundal xasida ñu ko Sëñ gis-gis yi. asalaamaaleykum wa rahmatulahi sant yàlla jullit ci yonent bi di sant sëñ Tuubaa di sant sëñ Mountakha mi nga xam ne moom moo ko fi nekkal. xanaa di ci am yëg-yëg rek si loo xam ne danoo fàttali nanu na nga xam ne moom la ko sëñ mag bi daan dundee sa njaareem te ñëpp xam ne sëñ mag bi bu rajo bu masaana dugg ak saxbaan ak weeru koor maam ca rajo moom lay tàmbalee waajal weeru ngir gi nga xam ne moom la ko fonk kon bu ñëwee tey jii sëñ Muntaxa di ko waajale nii ñu koy defal nii te ànd kaak mu jullit yëpp rawatina waa Hizbut Tarqiyyah ci taxawaay bu mat bi loolu moom dañ ci am yëg-yëg ak suñu xol di ci sedd bu baax te ñaawal si biir lii nga xam ne moom la euh, nekk te muy euh, jiite gi nga xam ne moom la jiite yoonu murid gépp suñu borom may ko kàttan dëgëral ko ñu ànd ak moom topp ci ginnaawam ba ni mu ko mu amee ni ko dañ ànd ko moom waaw suñu xol nag moom moom buñ fa duggee daal day am lu lu ñu yëg ci bi ni mu yiwee ak ni mu sellee ak li nga xam ne moom la amee organisation ndax nit ku nekk toog fa nga toog amul jàppal fii bàyyil fii loolu lépp day wane ne ñoom ñëpp maas nañ teewlu sëñ bi yëg sëñ bi waaw ñu ngi koy rafetlu bu baax asalaamaaleykum wa rahmatulah taala barakaatu waaw ah, kon ni mu la ko waxoon rek ne euh, ñu ngi ci tànt bi nga xam ne mooy tànt bi nga xam ne ci la ñu teewlu xasida sëñ Tuubaa yi tànt bi nag kenn ku ne xam ne fi ne yar teggin ak jom lañu àndee sëñ bi mooy bi sëñ bi rek waa kilifa boo amee kilifa am nga solo boo ko am nga moo solo ndax kilifa dafa am solo tey kenn ku ne xam ne ne murid li leen fi indi ko teeru dañ ko gunge kon noonu lañ ko ànd yéen ci biir jotaay bi ba tey ñu amee benn mu saare boo xam ne mi ngi ci biir jotaay bi mu wax a kàddoom yi nga xam ne moo jëm ci biir liggéey bi bari sëñ Tuubaa del xool caméra bi booy wax del xool caméra